وزكي لبي وافتح عن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a mat te muy bu lislaam di amaat bu sell bu mag dellusiwaat ci liggéey bu mag bi nga xam ne sumboon nañ ko muy ay salaatu an nabi yoo xam ni sëriñ bi da koo tënk ci xasida googu mu tudde muxaddamatul xidma fi saati ala nabi rahma aw miftaaxu saadati fi saati ala xeeri su ko defee dañuy daal ñëw ci salaatu yi nga xam ni sëñ Gueye dugal na ko sëriñ bi wax ne allahuma yow sunu borom salli na nga doole xéewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibil maraji ka nga xam ne mooy borom maanaam yëgg ka nga xam ne mooy borom yëgg maraj na bu ñu ko mooy jóge gi mu jógee masjidul aqsa te mooy Jérusalem dem ci suñu borom subhanahu wa taala ndax ku xam ne ne isra gi mooy jóge gi mu jógee màkka dem baytul maqdis léegi nag mi'raj gi mooy jóge gi mu jógee baytul maqdis dem jëm suñu borom loolu la ñu tuddee mi'raj te ki ko defoon nag mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu tuddee ko saaxibil mi'raj ki nga xamante ne mooy borom yegg jëm suñu borom wasalam naa doole ak mucc yow suñu borom alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya te buñ ñëwee ñooñu yonent bi sallallahu alayhi rek mooy képp ki wax ashhadu an la ilaha yaa ngi bokk ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sahab yi ak saxaabaam yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu gëmoon ko joxoon ko seen doole seen alal seen lépp ba lislaam taxaw wa jaal nii nag ma def wa jaal nii ma def man sëñ Tuubaa bi jaahi daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kas siraaji ma mel ni ab làmp buy leeralaate allahuma yow sunu borom salli na nga doole xewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibil mazhari al mashuud ka nga xam ne mooy borom fes ga feeñ ga waaye ka nga xam ne mooy borom siiw ga ka nga xam ne moo gën a feeñ ñëpp waaye ka nga xam ne moo gën a siiw ñëpp ndax alxuraan moo ko ne woon war a faana lak zikrak yàlla moo ko ne dinaa sa tur wi ba ñëpp xam la kon nee na mooy ki gën a fees ñëpp al mazhari waaye al mashhudu mooy ki gën a siiw ñëpp wasalaam na doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saxbi ak saxaabaam ya wa jaali nag ma def nag bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indaka fa yow yow sunu borom waa indahu ak fa moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maskuuran may ku ñu sant nag ma def daal ma doon koo xam ne ku ñu sant la ci sunu borom waaye ma doon ku ñu sant ci yonent bi sallallahu alayhi wa ma doon ku ñu sopp lool naa doon ku sant doon ku ñu sopp allahuma yow sunu borom salli na nga doli xewal ala sayyidina ci sunu sàng ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ki nga xam ne muhammad kay borom taxawaay bu ñu gërëm loo ba ka nga xam ne mooy borom taxawaay bu ñu gërëm loo wala wàccuwaay bu ñu gërëm loo ci sunu borom wasalam na nga doli ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saxaabi ak saxaabaam ya waa jaal ni nag ma def nag bi jaahi ci daraja nabi sallallahu alayhi wa sallam fi daari ni ci àdduna alaaxira ci àdduna ak alaxira wa fii ma baynahuma ak li nekk ci diggante àdduna ak alaxira ridan muy ngërëm mahmudun mu doon mu doon ngërëm lu ñu sant def ma daal ma doon koo xam ni damay làqoo ngërëm ngërëm loo xam ni ngërëm ngërëm lu ànd ak ak cant la man naa ko am ci àdduna am ko ci alaxira waaye naa ko am tamit ci diggante àdduna ak alaxira te mooy asamaan ak suuf ak mboolem lu ko wër allahuma yow sunu borom sali na jële a ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammadin saaxibil minbari kay borom min ba ka nga xam ne moo daan taxaw ci minbari di xutba di jàjj nit ñi di leen jëme ci sunu borom subhanahu wa taala wa na jële ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñañam wa saabi ak saxaabaam ya wa jaxali na ma def nag bi jaahi ci daraja yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak ma def zaaridan may borom ngaram def ma ma doon borom ngërëm wa na ak mbégte wa am nin ak kóolute wa tabshirin ak mbégte wa tabshirin ak mbégte surur mooy mooy kontante tabshir nag bu mu joxee mooy firi mbégte fil xabri ca bàmmeel ba wa fil maxsari ak ca dekk ga ak ca dekk ga yow suñu borom daal ma def ma doon borom ngërëm waaye ma doon koo xam ne kuy kontaan la waaye koo xam ne ku am kóolute ku am sécurité la waaye ma doon koo xam ne borom mbégte la ci bàmmeel ak ca dekk bisub dekk ba allahuma yow sunu borom sale na dula xewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad ka nga xamante ne mooy mooy muhammad saaxibil mizari ka nga xam ne mooy borom mooy mooy borom manto ba mooy borom manto bu mag ba wa wasalam na nga dole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñome wa saabi ak saxaabaami wa jaal na mu def nag bi jaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi daari ni ci àdduna ak alaxira dafa ma doon koo xam ne wazaru kilifa laay doon maanaam njiit dafa ma doon koo xam ne maay ma doon koo xam ne kuy jiital ku ji kuy jiitu laay doon laay doon saa su ne allahuma yow sunu borom sale na nga doon xewal ala sayyidina ca sunu sang wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibin na alay ni kay borom dàll ya mooy ñaari dàll yam daan sol moom yonent bi sallallahu alayhi na nga doon ak mucc ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saxabi ak saxabaam wa tahir nii nag ma laabal mooy nag ma setal bi jaahi ci jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoy caay-caay mooy ci jikkoy bon yi ak jikkoy ñaaw yëpp rek war rey ni ak sikki yi allahuma yow sunu borom sali na nga dole xewal ala sayyidina ca sunu a ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibil xiraawa kay borom màggaay ba kay borom bëx ja ba kay borom taar bu taar yaatu ba wasalam na nga dule ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa saxaabi ak saxaabaame waqi nii nag ma fegal bi jaayi ci jërëjë leen bi salaa sallam arida aridata mooy mooy tub tub bi mooy génn ci lislaam mooy murtat wa taraddudi ak sikki sàkka wal malali ak ak yuqat yuqat ci du jëf lu baax wa saqaawa ak ak texe di su borom daal yàlla nag ma fegal lépp loo mën a jural nit ki arida ta mooy mortaat génn ci lislaam wa taraddude ak sikki sàkka wala malali ak yoqat jëf ju baax wa shaqaawati ak aku texet yi allahuma yow suñu borom sali na jële xewal ala sayyidina ci suñu suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibil wasila kay borom yoon wa ka nga xam ne mooy borom yoon wa tegtalaa kon jëm suñu borom wasalem na nga jële ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa saabi ak saabaame wajaxañ nag ma def nag bi jaay yi daraje Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi daari ni ci àdduna ak alaxira xadimahu ma doon liggéeykatam wa zamilahu doon àndaaleem nekk nekkaaleem allahuma yow sunu borom sali nanga jula xewala ala sayyidina te sunu sang wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy a assaadi kay aji jëfe bi ma ñeel lépp loo xam ne amara digle na ko allahu yàlla wasalaam na nga jule ak mucc alayhi ci moom wa ala ak ñoñam yo wa sahaabi ak saxaabaam ya wahab lii nag ma may nag wahab lii nag ma may bi jaahi yi ci daraja yi nabi sallam kaw nii sama nekk abdallahi di jaamu bu yàlla wa xadima rasulillahi ak liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi daari ni ci àdduna ak alaxira déggoon yow suñu borom daal nag ma may ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma doon koo xam ni damay nekk abdullahi fii ci àdduna nekk ko ëllëg alaxira waaye nekk xaadimu rasul fii ci àdduna nekk ko alaxira allahuma yo sunu borom sali na nga doole xewal ala sayyidina a sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa xam ne aw turam mooy muhammad kay aji dëggu ja ka nga xamante ne ku dëggu la wa salam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala ak ñoñome wa sahbihi wa sahbihi ak sahabaam yi wa jaxal ni nag ma def nag bi jaahi ci ca jaraja yéen nabi sallallahu alayhi wasallam misla kulli faaixi ma mel ni képp koo xam ni mus na làq ak kawe ci diggante ak sunu borom subhanahu wa taala kon day mel ni loolu mooy doon maanaam bayit yi nga xam ni wala salaatu yi nga xamante ni sëñ Gueye indi woon na ko bu ko defee ñu taaxelu yeneen salaatu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu allahumma salli ala sayyidina wa mawlana